mom lañuy wax ñango ñu gën bay ñangu lay ya ñu gën bay ah. salam ba moy ñangu. ñangu moy air bobu ci kër soos ñuy. ci kër sa bay lay amul mas. Ah. salam ba ciow mom mom la bay lay may tafsir Ablaye jallo mm-hmm. mm-hmm. mu ah. taawloo bàyyi Babacar jallo mm-hmm. tafsir Babacar jallo bi nekkon Dakar. mu jël sama mam Fati. mam Fati. Mm. moo jur Seydina Isa mhm. maam Faati biir bu ñu wax biiru woneer ci mhm. la bokk mhm. maam Faati Mbeng Faatuma Jóob mooy yaayam maam Faati Mbeng maami maam Faati buri ñàngal ak njaate ñànga ñoo jogoon jolof sanca mbu xeex mooy fi stade bi nekk sa Léopold Sédar Senghor ñoo fa gënoon a rëy ab tool mhm. man mhm. samay maam lañu mhm. du ma waneer soo ñang mi jur sama baay moo di waneer mbure ñanga ak njaate ñanga ñoo bokk ndey ak baay njaate ñanga moo jur ndeccu jaañ mu jur maram mbenga mooy maami Seydina Isa bakkat bi ngeeg siti paye gay ak binta géey yaa ngi dégg ma wax ne Seydina Isa yaayam ku baax la na nga xam ne moom la bàyyi laay tànne hmm. maam kumba muy yaayam hmm. Seydina Isa noonu la tànne hmm. maam Fatim Mbengue muy yaayam dafa jikkoo woon jukko yi maam kumba jikkoo woon boo ñëwoon yof tey dinaa la yóbbu ba kër gi bàyyi Seydina ganee àddina damaa waxoon Serif Ousseynou nekk nañu ko jënd defar ka moo gën ñu di ko tudd dàkkantale bayti lax mi mu nekk fii géej gi di lekk genn wàll gi bàyyi ka man ku si nekk fa nga juddoo xam naa ko mm-hmm. dafa am ay soxna yoo xam ne ba bàyyi laay laata oote ñoo fi newoon mm-hmm. muy maam Mari Diouf mm-hmm. maam Fatim benga, ak maam Farma ñoom ñette ñi rek ñoo fekke woote ba xablal baax si ñooñu ñoo fi nekkoon maam Farma moo jur bàyyi ma ñoon maam Fatim Mbeng gëntur la lamanu mbu xeex ba moom la yoof jëkk a fal mu nekk kilifa mhm. ba si Ali Ndaw Mbeng mhm. maami Seydina Isa ba bay Baye Seydina Isa mhm. ñooy ñi nga xam ne ñoo war a nekk ay jaraaf mais Baye naa dafa bëggul woon a boole pale àddina ak pale àllaaxira jaraaf boo ko falee dina toog juróom-ñetti fan du julli ci wàllu cosaanu mbir yi du julli dëgg la di takk ay ndomba yoo xam ne bu titi bëy la ak di sangooy deret ak ñoom seen waaw. waaw ak dem si xambay bay sey naa def loolu. wallaay wallaay wallaay. bay naa du dem si ay xeer jonkan di ñaan xeer yooyu xam na ne yàlla mooy yàlla ku dul yàlla matoo ñaan. dëgg la na ràññee ba mu nekkee xale booba fekkul yaayam di sa dem moom Seydina Isa. dëgg la faa Fatim Mbengue moom ma jur Seydina Isa. Hmm. boo déggee bàyyi laa ne yaa Fatimata Tahiratan. waaw Tahiratan. Tahir. almaawu hmm. Tahiril mutatahir. Hmm, yaa Fati. mooy ndox mu laab ma hmm. wande ka mu laabal mooy Seydina Isa hmm. moo tax sa maam Maalim Mbay naka yaay fàtti wàcce nga jur nga buur jur saa jur yonnen hmm. te saa roo wala yàlla la yónni yow politigo wallaahu ba bàyyi lay de dooro oote oote ba mu metti lool mbokki lébu yëpp quarante bàyyi lay mooy ñu abandonné ka mettre ka en quarantaine kenn du ko tudd yaa fàtti dem na si àll bi mbël xam nga mbël mbël di xamuñu ku lay mat mbël mooy fekk bu di toolab gerteem waaw ku amul doom ju góor ju la bayal di nga béy toolab gerte bay laa ñu di ko yow nab dof la fan lay béyee hmm. yaa faati bu nit ñi béyee ba pare hmm. rus naa yelwaan day takk ndiggaam dem ta tool yi di kësaat gerte bu ko lakkee hmm. ñu xolli ka moom la waa kër gi añee moom la ñuy reere boo reer booba neexul daan nañ dem si àll bi booba raaj bare na du xam nga raaj. raaj yi xamuñu ko lay matar raaj mooy doomi raaj yi ñuy jaay si marché bi. waaw mooy yi ñuy jaay nii. waaw raaj jooju. waaw daan nañu ko añee si kër Baye Laye. Baye Laye alayhi mbaaña xam nga ko déedéet loolu day xam. mbaaña moom la la wax njàndam. njàndam. daan nañ ko xolli macca ka weer xoox yi ba mu weex. Hmm. ñu dëbb ko rukk ka. Hmm. bu ñu ko rukkee lay ka. Hmm. daal di ko tey. Hmm. gàmb ko def ko cere. est-ce di ko wala ñu def ko sànqal. Hmm. di ko laax. Hmm. boole kaax laaxu bënqal xam nga ko. Ah, loolu day mbokk yi nag xam naa ne. laaxu bënqal mooy daxaar ju ñorul. est-ce nga daal di ko dëbb. rukk ka mhm. daal di ko segg mhm. jël lem ak lem gu ñu wax dànkeew dànkeew xam nga lem googu déedéet xamuñu ko dànkeew mooy lem gu ñu gas juróom-ñetti lem xam naa ko mooy mhm. lem goo xam ne kon lakk ko dañ ko gas mu nekk sib jànja lem googu moom la mu ngi daan suukare bu ñu amul suukari lekk ko noonu ko amisaan da nga sonn boo ko lekkee loolu moom lañ daan lekk si kër gi yaa faati téel bàyyi lay suturaam mbokk yi mer jël maam faati yóbbu ko yóbbu ko waaw ndax rek eh, ni mu nekkee woon ak. booba dañ na Baye Laay dafa dof. Mm-hmm. jël maam Farma yóbbu. Mm. dañu leen dóor a dóor ba ñuy bëgg a dee. Mm. yeew leen di leen diri. Mm. mooy xëcc bañ leen yóbbee. li tax maam ma ñëwul. dañu ko jatank. Mm-hmm. xam nga jatank. jatank déedéet. mooy yeew say loxo yeew say tànk sampal lëb gétt. Mm-hmm. moom nañ ko def. maam Faati dagg ay buumam di raam. ñëw ba si kër gi keroog bay laay jooy na ay rangañ xëj hmm. fekk bàyyi laay di liib liibi si kër gi hmm. moom it ñu ngi koy surveiller hmm. yaa faati di raam si laaye bi ba ñëw bay laay xool ka ne kii ku mu doon man ka man faati mun ko faati ñëw nga mën ko ñëw naa yaa rasulullah lay akbar bàyyi laay tee sa mbagay jooy nekk di nga fi jur doom ji tekki billaahi li may wax dëgg la faati mooma moom la maam li maam waxoon yaa fatimata taaxirate yaa farma zakiyatan inna laa axtaakuma zawjan lam yuxtee axadun fi duniyaa mina nisaa yi mina nisaa yi kay yàlla jox na leen jëkkër joo xam ne da ko jox jeneen jigéen si àddina maam farma ku baax la moo tax mu jur sëy naa ma ñoon saayibul kiraam maam faati ku baax la moo tax mu jur bay sëy naa wànde na ñu ne tele histoire ba mel ni maam far maam farma dafa daw bàyyi kër gi demewul noonu. Mhm. dafa am ñu xamul ñoom laay gàggante moo tax ma dugg fii. tubarkal loolu leer na macha allah. dafa demewul sagaam moom maam farma. Mhm. maam farma. Mm. moo gi yaay yi yaa faati ñoo bokk a mhm. bàyyi. ma ñoon di jàlle si sey naay sa. mattaari sanu. Mm. bu juree farma. Mm. mu jur sey naa ma ñoon faatu ma jóob jóge fa jur faati mbeng yaay sey naa isa kon. maam Farma yaay la. Mhm. du dëgg. dëgg la. kon Baye Mandione mooy nijaay Seydina Isa. Mhm. mbokk googu dara xaju fa lu rafet rek a fa ne. dëgg bàyyi laay këram dara ñaaw fa. Mhm. dafa am saay-saay soo xam ne xamuñu dara. juddoo ñu si kër gi tey bëgg ni teli loo xamante ne du noona dëgg la Isa. alayhi salaatu wa salaam. nekk xale. kenn masul gis aw yaramam. buy sangu ci géej ay yéreem laa sol mbuba yu ñuy wax am cëpp. am cëpp mooy loolu mooy lan. boo bay piis bariwul. am na lu ñu daan wax bele. bele boobu saako yi moom la nit ñu daan dàjj hmm. daal di duppati baat bi da koy sol rek mu wàccee si wet gu nekk. moo hmm. mel ne lu ñuy wax xar ndagg hmm. moom nañu wax am cëpp. ab bu duggee si biir kenn du gis aw yaram moom Seydina Isa. ndeysaan. loola mag ñi di ko weerante di ko dañ mu dem ba bàyyi laay naka. isaa mandaw dama lay yóbbu sa kër a bàyyi njëg a gëy nga jàngi alxuraan foofu nag fële mbir ma nekk hmm. loola nga ma waroon a laaj waaw kooku incha allah dinañ ci gën a yaatal defe naa si sëy naa isaa laa nekk sa ngone ga waaw ca ngone ga yaa ngi ñuy leeral ci jamono yi nga xam te ne ngone la ngone la nga xamante ni war nañ fa jëlee exemple da ma laaj lan mooy jëkkëy Seydina Isa waaw ku laa suturaal kenn da ngay suturaal sa bopp suturaal sa bopp fa mu commencé mooy nëbb say defe naa ni jàngit bu kawe la ndax xam nga ni loolu bu ko nit ñi déggee waaw ñun tey ñi dañuy dem ci géej géej seen dina tax ñu jëlee fa ay leçons yu solo waaw mbir bi nga xam ni moom nga leeral noonu te lenn dinaa la ko waxal muy Seydina Isa ba muy ñëw àddina hmm. loolu yonante yi indiwaale moom la indiwaale xale bu mel ni man. Hmm. dañu koy yóbbu siblal. waaw ah, waaw xarafal ka. Hmm. moom jaarul si yooyu. waaw. ba nga xam ne yaayam am na ka. Hmm. sa su bëgg mënoon naa julli. yooyu jigéen ñi gis-gisu ko. bàyyi laa it bokk na si ñooñu. keroog ba ko maam kumba amee. sa su bëgg maam kumba bu ko neexoon mu jàpp julli. dafa set. jumba xam. buum gasee nekk. di yeewu si yaay ji. Hmm. dafa judduwaale buum goog a deñ. Hmm, hmm. kenn daggul ëpp luttam lutta. moom la la buy wax cordon kenn daggu ko. dafa juddu rek liibar. alhamdulilah. bàyyi Seydina Isaa bi mu ñëw si àddina dafa andiwaale loolu yonent yi daan andiwaale. wallaahi wallaahi daal di seet wécc. macha allah Seydina Isaa mooma. ma wax la ne bañ koy bësu kër tafsir njaga bu ko maam jóge baa. neel baa bàyyi sëy naa ne teg mm. du ko tontu si saasi de mm. maam Njaga Géy ku ñu mm-hmm. wax Buuba Mbenga mm. ak Amadou Géy ñoo ko jur 1840 la judd mm-hmm. maam Njaga Géy moomu sëñ ñi jàngal sëy naa Isaa la mm-hmm. maam Njaga Géy bu ne sëy naa neel baa bàyyi sëy naa ne baa taf seen Njaga Géy xam moom ma ko waxoon ne neel baa moom ma ko waxoon ne neel baa waaw bu sëy naa Isaa nee baa moom ci boppam mu xam mu xam ba mu yàgg tafsir njaga loola dañ si moom mhm. bu ko bàyyi sëy naa bu ko tafsir njaga ne neel baa mhm. sëy naa isaa bu ne baa mhm. na si suuf këpp tafsir njaga yëkki yëkkati yëkkati taalibe ya neke neel siin sëy naa isaa ne siin daal di xëm mu ne neel miim mu ne miim sëy naa isaa xëm bàyyi njëga gay jiital ko ba si bàyyam naka yow liw mu andil du nit bu ma ne baa mu xëm bu mën a sim mu xëm hmm. bu mën a miim mu xëm hmm. bàyyi laay ne ka isaa mandaw bàyyi laay dafa xam kay mooy Seydina Isaa hmm. moom ka isaa mandaw dafa xam lan mooy baa xam alif ga jiitu baa xam tomba ba sa suuf mun ko siin ga sa toppa cat lu nekk jëm asamaan bàyyi sëy naa xam na lu ko tax a taxaw xam na miim hmm. lu ko tax a taxaw hmm. mun ko xam-xam ba mu ko xam boo neneel baa bu na baa day dellu sa yàlla mu ko bindoon tudda ko rooxul xut hmm. mun ko fa lay delluwaat tafu sa moom xam loolu lay door a wàccu at moo tax muy xam maam jógee na ko kon nga téye sa bodo sa doom bàyyi laay na isaa mu ndaw mun ko waa mun ko rëkk waay isaa mun ko baa bëggee ilif addina ndax a def li waa addina la def bàyyi sëy naa door a bu ñu demee di taxane ji mm-hmm. mooy uti ji matta mm-hmm. matta mu ñu taal mm-hmm. booba matta mu ñu wax ay nganja moo fi nekk ak ay uun barewul saxaar wande tàkk-tàkkal la rafet na bàyyi sëy naa day dem dellu sa du andi dara sa lig nit gis ñu ñëw si maam jëgg kay ne ko waaw yow de yaa ngi gënaat yow mbaa du nga nekk ndijaay Seydina Isa si woneer gi nga nekk ab woneer hmm. Seydina Isa nekk ab woneer ngay ndijaayam di mbokkam moo tax doo ko yan hmm. maam njëga génne leen lu tax ñun ka Isa mandaw kat hmm. du indiwaale dara maam njëga ne loolu mën a xam dem leen ba suba sa suba ga ñu dem taxani ji ba ñu taxani jee ba dellu sa mooy uti matta bàyyi Seydina andi loxoy neen maam njëga ne ka tey de dinaa la xenk xenk mooy la mooy dum dinaa la duma dinaa la xenk bàyyi sëy naa ne kese lan mun ka yow say maroom yëpp dañu dem uti ji matta te indiwaale la matta mhm. bàyyi sëy naa ne ka na xam taxan naa de mm. mu ne ka taxan nga mënta mun mun ka an taw say mun ka ne ku nekk teggiw sayam mm. booba ña fa nekk ay saay-saay lañu mm. bëgg nañoo dumalu sëy naa isaa ku nekk mm-hmm. marqué saw say wutal ka màndarga mm-hmm. ku nekk teggi aw sayam mu des fa say wu rëy woo xam ne kenn xamul fu mu jóge mm-hmm. Baye Seye naa ne ñu mbaam njëgee leen ñaata taalibe ngeen woon ñun ko fukk ak juróom-ñeent. Mhm. mu ne ku nekkatee ginaaw sayam ñu ne waaw mu ne waaw say wu réew wi ko fi indi. Mhm. ñun ko kii de ab jibar la. jibar la Baye Seye naa ne leen ah du ma ab jibar. Mhm. ñu daal di bàyyi. Seynaa Isaa wàcce na fa ñetti yoon alxuraan. est-ce que daaray Seynaa ca taf seen njaga. ba muy am juróom-ñaari at. boo fay fekk na bay Seynaa ottu na alxuraan. benn bés ñu ne ko Seyna Isa mi warula toog laal alxuraan. Hmm. boobu ba bàyyi naa war naa laal alxuraan. Hmm. parce que moom dafa judduwaale xam nga laayeen buy juddu rek ñu di ko xarafal. Hmm. bàyyi naa moom jaaru su loolu daf ko judduwaale. wanda ñoom ña nekk ay aat. xam nga aat. aat de mooy ponkal moo xam ne mii mu ngay saxab si këm te jongul. dëgg la. bàyyi sëy naa ne leen waaw ki nekk ab aat bu sawee lu mu raxasu raxasu. ndox ma des sa biir mbuñu ko am. mooy mu des sa biir loolay la nga dagguñu ko mm-hmm. loolu raxasu raxasu mu des bu mën a jël alxuraan tekk si kaw istamaaman est-ce que ñu ne ka du sangu mu ne wallaay dinaa sangu di ngeen ma gisul du fóot yérem mu ne dinaa fóot sama yérem ba nab gàkkaasi nekk mag ñu ne ko déet kii doomi jabar la de baa moytul mu jabar la mm-hmm. maam njëgg kay dugal ko si biiram nekk mm-hmm. dal di tufli si baaramam bii xam nga ku tër buñ la ne nii day leer. waaw day day takka. waaw maam jógee kay ban bamba kese loo xam ne jëpp dëgg mën a xiic xiic mën a kii day tërul. est-ce que mën a ko isaa ma ndaw summakul maam jógee kay ne ka bàyyi moo yaramen du ko gis. Hmm. bàyyi sëy naa ne ka moo yaramen du ko gis. Hmm. maam jógee kay ne dama ne summakul kan dul gisu yaramam amoon mun ka bàyyi ba mu summakoo du la jig. Hmm. mu ne ka dama ne summakul. bàyyi sëy naa ne bismillah ne mureet yaram wa maam jógee kay ne laay laay xam nga lu mu gis lu mu gis nekkate seyna isa li feñ sa yaramu nit ku ñuul wante li des lepp dafa tal allah yaram wépp dañ ko bind alquran allahu akbar billahi wallahi taala mam ja gey na ko mu mur sa la ko jël yobbu ko sa ba booba bàyyi seyna mu ngay genn juroom ñettet duga juroom ñenteet hmm. mu dem fekk waa tongoor tongoor maam Mam mbay ñu ko mbay risala hmm. maam Matar Sadio. Hmm. yaa ngi dégg. bu baax maam Thierno Seck borom Daara. Hmm. maam Mar Samba sa ninaat. Hmm. góor gi ma xuccee njooro mbenga sa mbengeen. mag ñi dajaloo ni dañuy ñëw dagge ak dagge mooy jamante. jamante ba ñu ñëwee. ak leer moo génn si boppam bàyyi lay jëm sa kaw. wàcce dugg si seeni bopp wër leen. Hmm. delloo si waat si laay ñoom xamatuñu dara. est-ce laay nangu lañu xamoon ay ginaar saxtane leen. est-ce que. sala sa maam. Hmm. limaamu. Hmm. yëkk bàyyi seen ay saa tekk si mbaggaam. ne leen li ma yàlla yónni. bu sama appa jotee ma dee. te yàlla def ma bañ kaa matal. wallaay xarsat na kaa mottali sama doom ji. bi. booba bàyyi Seydina Isa mu ngay dugg juróom-ñeenti at mhm. samaam Seydi hmm. mag ña joge fa na njëg a géy mi xeeb nañu ko léegi nañu dem ségal kër Baye Momar Ndiaye mhm. koroog ba mag ñaay mhm. Seydina Isa moo yenu kàggu yu maam njëg a géy kàggu kàggu mooy ay téeréem ñu dox ba ségal mag ñi dañ daan dox ñu ne leen tafsir ndikke wàdd mi ngeen bëgg a laaj nekku fi Hmm. Baye Momar Ndiaye mu ségal moo leen ko waaye nga baal ma balaa nga wéy dama daan dégg mag ñi wax baatu nderewale loolu mooy lan way ndere ay ndere waaw loolu it way ndere way ndere ak kàggu ba tey kàggu hmm. mooy téere xam-xam mën naa nekk ximéraar hmm. mën naa nekk risaala waaw mën naa nekk maqaamatu xariir yi mën naa nekk loolu waaye bële nag wa way nere nag mooy fi ñuy tënk turu yàlla yi ak talsam yi ak yu demee noonu ah. loolu la ñu uutee waaw def naa loolu baax na pour nit ñi daal di koy xam <laughs> waaw lu solo nga xam ne foofu nag maam Sidi moo yeru moo yenu kàggu moo yenu kàggu tafsir euh, njaga tafsir njaga waaw ñu daal di dox ba ségal ka Baay moom Momar Njaay mu ségal waaw fekk ñu fa tafsir ndikk wàdd wàlliya lay mm-hmm. ñu ne nañu dem ba kaw Tiwaawan mm-hmm. am na dëkk bu ñu wax yàjjin yàjjin fa la xaali ma jaxate ka la nekkoon mm-hmm. ba ñu demee foofa fekk fa tafsir ndikk mu ne leen yàjjin mhm. Seydina Isaa ngi taxaw ñuy weddi bàyyi ma ànd ak moom mhm. ñu ne leen mooy yàjjin tafsir ndikk ne leen dex ak yàjjin gii ndox mi si suuf lay balle mhm. bu ballee dex yàjjin dina diw dina duy bu duyee barax ba fay sax bu matee ñetti xase bi góor lii mooy sebre lii ma def nii lii mooy xasab lii mooy baraas mu neen bu masee ñetti xasa bi góor mm-hmm. dina génn lu mel ni génn fas mm-hmm. sa suuf ga mm-hmm. banti përtël ya mooy bante daan xattee xalima mu ne leen bu génnee ba mat ñetti xasami góor dana génn lu mel ni cunkóoral jaar génn jaar yooyu ñuy daka wax ñaam muy écureuil mu ne leen xadda ba ñor lu ngeen dégg sawub jënt mu yëngu na ngeen xam na limaamul maadi wi la booba naa Isaa nga sa ànd booba bàyyi laay dellu waat fii mhm. bàyyi Seyna Issa toog mhm. nangootul kenn xam ka mhm. ma bàyyi la nga laaj mooy dooru continuer yaram waa nga ah. bëgg a tàng loolu am na solo mbokk yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax ah. kon loolu yi dafa nekk ci jaar jaaru ka nga xam te ni maay maam Seydina Issa ca ndawam mm. ci biñ koy Seydina li ma naan Issa bu ndaw kon mm. jaar jaar boobu yëpp mm. jot na leer waaye ñu bëggoon xam bu baax a baax a baax moom maam Seydina Issa Roulaye xam nga sànq wax na ko nee nga euh, Seydina max di jamono ji mi nga xam te ni yëkkati na Seydina Isa te ko ci wetam di wax mag ñi li ma yàlla yoon yónni illam uttima risala lay arsala nii hmm. sa yutimu hazir ulaam dina ko matal xale bi nga xam te ni moom ngeen tiim hmm. ci biir loolu nga xam te ni bayit yooyu nga xam te ni jot ñu mag ñi jot nañ ko leeral bëggoon nañu xam Maam Seydi moom it bu mu demee ba yàlla dogal nag mu toog nag ci xilaafa bi ñu bëggoon xam jikko yi nga xam te ni moom jikkoo woon na ko ci wàllu diine ci boppam alxuraan bi nga xam ci ndax téere bañ ne yonent yàlla Isaa bi nga xam ci ni moom la ñuy gëstu. Mm-hmm. te moom la àdduna di xaar. Mm-hmm. dañ ne kooku bu ñëwee dafay àttewoo ci yoonu lislaam est-ce que ñun waa ahlulaay mën nañu gën a am firnde ni ki ñëpp di xaar moo tëdd fee ca Cambérène laay maxtaar. ki ñëppay xaar moo tëdd si Cambérène. Mm. mooy bàyyi Seydina Isaa. waaw Seydina Isaa. Seex mm. Saadibu. waaw dana jikko yu baax kenn du ko for dañu koy nàmpa. dane uwa labar ibnu labar barun ila abil bashar musalsilan mi man sajat iski mag ñe ne hmm. yaram doomi yaram ndeysaan seyde doomi bàyyi laay ba bàyyi laay demee jaamalaay yaa ñu naan ka yaaram doomi yaaram ndeysaan seyde doomi Baay Laay ba Baay Laay demee jaa malaay yaa fi ne billaahi dañ naka sey naa isaa yaaram nga yaaram nga xam nga yaaram waaw ku yaru waaw nox koo xam ne kii siisoo mm-hmm. jikko yu rafet yaa si mën ñëpp waaw jéggale yaa si mën ñëpp allahu def lu baax yaa si mën ñëpp wallaahi déggoo baay lu baax ña ngi waaw ku la tooñ nga baal ku la ñaan nga may ndeysaan Seyde Rasool ngay laala. mooy alxuraan. mooy alxuraan. jikkaam mooy sunna. mooy sunna. xam nga sunna dafa xaaj ñetti xaaj. waaw. mooy lu yonente bi jëf. Mhm. kooku sunna la. li mu wax. kooku sunna la. dëgg la li mu fi fekk te dindiw ko saxal ko kooku sunna la. loolu wér na. Baye Seydina jikkaam mooy jikkooy Baye Laay. Mhm. ndona hmm. ak kóotaay hmm. dañu benn hmm. xalifa ak naayib dañu benn déedéet xam nga naayib bu ilimaan di uutoo mën na nekk ilimaan waaw xalifa ab dof bu fi magee nag ndax dañ koy jiital déedéet xam nga kenn du ko jiital